waaw euh, ñun mburu euh, mooy suñu métier amul format buñ ci mënta def mais par commodité pour population bi ak suñu mm-hmm. mode alimentation suñu habitude moo tax mm-hmm. ñuy def format yi mais forme yëpp lañ mun a def mm-hmm. j'ai appris le pain en Italie ay rond rek lañ doon def baguette wala cabaat loolu lañ doon def euh, kon xam nañ ci dara wala puliese waaw Euh, wala bi ñu daan njëkk a def Sénégal tuddee woon ko jeeg. mais su borom ko defar euh, proposé ko Sénégalais yi peut-être bi ñu ko découvrir dinañu mën a changer. changer amoo droit def ko. parce que pain dafa nekk ci régime homologation dafa dafa am tamit norme kon ñooy définir norme yi ñooy définir pois yi ñooy définir prix yi mmh, mmh, mmh. ñu soog ko mun a defar mënuma am jour xëy benn jour rek def format boo xam ne en dehors de ces yi beneen bi ci euh, pour terminer ci beneen question bi mooy euh, est-ce que du nga ni Sénégalais yi du jot ñu jóg ñu le pain est le produit le plus moins au monde le plus consommé mais le plus accessible mm-hmm, mm-hmm. defal comparaison avec fonde wala avec mboq parce que mboq bi loo incorporé la mais mënoo def bi pain à base de maïs parce que amul gluten mm-hmm. il faut nga il faut impérativement de la farine de blé pour mu am gluten mën a lever waaw ah, kon dañu amul choix bu ñu subiree tyrannie blé c'est c'est pas seulement le Sénégal c'est tout le monde à travers le monde c'est le blé qui dicte la loi kon léegi nañu fexe ba li ma ko waxoon ñu continuer promouvoir suñu blé national. commencer ci benn peut-être un jour dinañ am autosuffisance. ça la solution hmm. ñu def ci li ci war. mais taw on actuellement nii bu bras de fer bi continuer nan ngeen nar ko yàlla parce que <laughs> sunu métier la ci la ñuy tedd. wax dëgg yàlla ñaanuñu ko yàlla et puis euh, ñun ñoo choisir métier boulangerie ñoo choisir nekk au côté de la population man maa ngi jóge ba banlieue ba way mm-hmm. xam naa mburu bu fa manqué. ban impact lay am xam naa ko parce que man toog naa xëy décréter grève euh, jëndi fonde sama waa kër toog ba 10 heures ni ma papa ana ndékki bi mm. parce que gisuñu mburu mm. ci habitude du sénégalais la bu ñu gisul mburu ndékki wuñu kon li ñu ñaan autorité kay li lay war a résolver mooy mu décante situation bi mm-hmm. di jéem a defar nag par maanaam saafara warut a jàngoor jàngooram loolu lañu bëgg mu éviter ko maanaam xool ak acteurs yi te xam ne ay jàmbaar lañ mu xool ba décanter situation bi. Mhm. sans dem ci ay bras de fer defe naa ni loolu. ñu ñëpp defar moo ñu tax a jóg. amul kenn njariñ du askan wi tax ñuy liggéey du état bi du industrie bi. lool daal lañ koy ñaan.